nekkul sareet de nekkul car rapide de vol la vol mu yóbbu ma benn yoon ñu ne da koo tandu est-ce que du showbiz mu yóbbuwaat ma ñaari yoon yóbbu ma ba Dubaay jëlal ma jëlal ma hôtel na ma dëkkal ma dem sénégalais gambien yi di ma teral xaalis bu ñu ma jox su ma ko joxee mu ne ma déedéet yow yaa ko moom engagé sa wërsëg la yàlla na la yàlla defal jàmm jàmbaari Serigne Saliou bi vraiment nag ki yaa yàqu ci dara benn yoon nga nekk jigéen te mu leer na ne am na ay góor yor natt waaye da jigéen laa laa su laa fii avant nga dem jàppale sa moroomu jigéen ngeen ànd jàppalante yéen ñaari jëmm yi kenn mënatul leen a génne ci 8 mars ci réew mi parce que nag ay jigéen ngeen woote woo leen teesante woote wooy wooy sama nday laay lay lalu eh waa gis nga natt bi laay maa yërëm ku bokk ci natt bi bëgg a bëgg la falaate police direct avocat natt bu am police avocat dèjà benn police ngi nii toog tan tan tan tan tan tan tan waaw waaw nee naa la eh njaayloo Ndiaye Lo lu ne fàngi kenn du ko jeex dama ne natt 40 millions la woon ki yaa teggi 40 million 40 millions yaa ngi noonu ànd ak ay kayit yu valable nag te kayit yi leen waralu ko lu dul képp koo xam ne bokk nga ci natt bi nga dem ba gis lu la jaaxal am nga droit def déplacement laajte waaye nag macha allah léegi mu def en presque 20 ans ci natt te boobu ba tey mi ngi marqué empreinte musu ci am problème nit musul ñëw akki si ko ne ko danga ma yoreel bor mu doon jàmbaar ba ñu waree ànd Dubaay ba ñu waree ànd Dubaay le 10 jotagul waaye xoolal. ñëpp ñu war a tegg litis da leen a bàyyi seen xaalis ne ku fi ñëw ku war a tegg litis jox leen ko xaalisam yàlla na la yàlla defal jàmm ki yaa nga baax nag nekk borom sali nga am jom diwi yaa ci mën nag diwi yaa ci mën ku la xool xam ne diwi yaa ci ku la xool xam ne nag diwi yaa ci mën nee naa la tin bi rafet na wax ji tubaabe na communication bi baax na say assistante baax dal ba pare mool nag du ma la nëbb dara dañoo mool sa assistante dañoo mool di wax waxal ak moom suñu ami internet yëpp euh, di leen wax ne nag euh, tey dañu ñëw fii ci fermeture euh, Kia bi ah ñu ngi fi ñëw nag mais nag indaaleel ko natt bi parce que nag def ci bokk ñaari loxo muy 80 million mais mosuma ne Diva teggil ma dëgg la nag sama xamanteeg moom ci engagé la jaaree mu ngi may suivre maa ngi koy suivre ndax suñ ne ko kuy dina ko xam kuñ suñ ma kuy dinaa ko xam mais nag sama xamanteeg moom ci yow la jaaree mu ne la dama bëgg a bokk natt Euh, Diva Saliou moo a doy ci moom laa bëgg a bokk nga ne ko ñëwal doo ci am dara lu la metti ba tax na loolu ba mu ko defee moom demandé wu ma pour ma teggil ko chaque jour que jëfee 200000 mooy njëkk a dugg chaque jour day natt ci man 200000 muy 80 millions yu mbokk ci man euh, su ko neexoon muy def foire sax woo ma ne ma teggil ma soxla naa ko mais day wane ne moom liggéeyewul xaalisu nat te xamal na ma ni c'est la première fois muy bokk natt kon nag euh, tey ma ñëw ci fermeture bi comme ñëw na Dakar te man su ma koy teggil dama naroon a dem ba Mbour fekk ko fa ma ne kon xëy na day gën a yomb fii rek ma ñëw indil ko 40 millions yi rek moom moo ko teggi ci tey le 9 bi hmm, le 9 euh, novembre ñu koy jox nag nee naa leen nag kuy soldat jógal maaj colonel baa ngi soog a ñëw tubaarikàlla <laughs> muy noonu ayca loo nag mu ngi lox njaay moom damaa yaakaar bala mu fii jóge bu kirisul hmm. bu kirisul dina ah, am lu ko dal ndax ñeent fukki millions yi moo ko ah. téye moo doon dàq ca màggal ga moo téye ñeen fukki millions yi war koo jébbal nag suñu système bi nga xam ne mm. teel a xëy guddee wàcc rek nee naa la montre yu baax yëpp bokk heure yu bon yaa nga Jérusalem te duñu mës a pare mm. ah, jigéenu liggéeykat yi jigéenu jàmbaar yi ñëpp benn parce que ñun xamuñu lu dul teel a xëy guddee wàcc ci la ñu nekk nag ah, ñun ñëpp rek dañuy manko ah, li ñoo feelaa la force mm. mbooloo mooy doole te dañoo ànd ñun ñëpp suudewu doon benn wax nga wax nga ko léegi ci sa biir wax nga ne kenn mënatul euh, moom mënta mënta ne xaw ma diva mhm. diva mënul ne xaw ma kiyaa donc li nga koy seetaan avant ngeen de xamante lan moo la gën a motiver ci moom ci ay ko ci ay ci ay qualité am daal voilà gis naa ko dañu xaw a naroo ji ko parce que elle simple ba pare dafa tubaabe te man damay bëgg genre nit yooyu man rëbu ma ah dama simple ma gis ko ci moom ah tout le temps dama koy suivre yow jour bi nga ma a woowee nga ne ma Kya dafa bëgg a bokk sanat dama ne la Kya dama koy suivre tout temps xam nga gëm ah, mu ngi li mu nekk te kenn dégg ko ci ñaawalu ko xam nga moo tax nag ma gën ko jàpp ban conseil nga koy conseil en tant que jigéen ngeen bokk ngeen bi ngeen nekk te bokkoo leen domaine yow yow yow natt nga yor moom ay ay diw jaay mais lan nga koy conseillé kay ne xam na ni ñëpp a ngi jaay mais du ñëpp la yàlla may tur ci réseaux sociaux bi donc lan nga koy conseillé ndax yombul mm-hmm. neex na tak benn côté ndax di nga jaay di nga am ay clients mais mm-hmm. tamit pour yenn yenn yenn négativité yi yiy xew mm-hmm. waa tur moom bu la ko yàlla dénkee rek euh, xamal sa bopp ah wàññi say wax bu liggéey jotee nga liggéey ah, bu wax jotee nga génn wax mais la ngay wax na am fulla te la ngay wax na doon loo xam ne xale bu ko dégg na doon na ko motiver na nga doon royukaay parce que tey jii ñun ñi am tuuti tuur ah xale yi dañuy yor roy ci ñun des fois boo defee lu baax xale yi dañuy ne loolu baax na mais boo defee safaan wa it xale yi dañuy yaakaar ne loolu baax na kon boo xasee rek ba 10 personnes doo nga xam la da ngay gis ñu la bëgg di roy ci yow kon nag euh, da ngay def lu defu di wax lu waxum waaw man nag maa mu gën a jàpp liggéeyam comme askan bi fi ñëw rek xam ne déjà produit desetu fi mm. lépp jeex na hmm? vente privée la doon def mais lépp jeex na ay millions ay millions xam nga lépp jeex na tey jii fi mu ne dafa war a dem ñibbi kon référence la nit ñi bëgg nañ ko na góor góorgóorlu rek liggéey liggéey marqué na empreinte am ba pare xam nga kenn dootu ko laajte ci réew mi loolu rek yor natt bi tamit foog ñu wax ci ban coono ngeen am yéen ñi nga xam ne da ngay yor natt parce que des nga gis koo xam ne dañ koy euh, dafa am ak problème ki ki yor natt bi mu génn def laay fa mu wax problème bi mu am des fois tamit nga gis ki yor natt bi ci jëm boppam mooy teggil nit kooku daw a xaalis loolu lan ci mën a wax ak lan nga ci dund waaw loolu moom euh, nattkat yi a koy dund parce que dafa am ñu gore am ñu gorewul mhm. des fois nit ki daf lay wax lu ne ba nga teggil ko mais jour bi nga ko teggilee la lay gëj a xam waa man nag moom samay natt demeewul noonu parce que man sama sama sama xaalis deru mbëtt la ku ko lekk da koy joxe hmm. waaw gis nga 40 millions ni muy yombeeg 100 millions yeeg 200 millions yi ko lekk da nga koy joxe parce que man samay natt déjà dafa am dafa am contrat mhm. booy bokk di nga signé contrat mhm. Ah, booy jot sa xaalis tamit da ngay signé contrat wane ne jot nga ko. Mhm. am na ISO am na avocat. kon du lu ñuy lekk. Euh, muy rees. Mhm. ko ko lekk da koy joxe. Mhm. may wax nag nit ñi nga xam ne dañuy teggi nattu jàmbur ba pare lekk ko dawit loolu du yoon. parce que nit ki liñ lay jox moomagoo ko parce que alalu nit ñi lañ dajale jox la léegi suñ dajalee alal jox la da ngay dajale fay. ba mu mat nga soog koo moom. léegi euh, gis nañu natt oto yi bi nga demee Dubaay gis nañ natt oto yi gis nañ tamit nattu nattu euh, xaalis bi nga xam ne xaalis nga teg ak ki nga xam ne oto lay teggi mhm. ak ñi nga xam ne euh, moto trois roues la Diva aussi ci ci terrain yi Diva ci tool bi léegi Diva dafa am équipe bu nekk ci ginnaam wala moom seul moo boole liggéey boobu yëpp di ko dem voilà waa am naa nag ñu nekk sama ginnaaw parce que lii yëpp mënuma ko parce que natt yoo xam ne 75 groupe la la ba 100 millions ñu koy natt keroog bi ñuy teggi 100 millions yi maag yow a ànd yaa am ko doon konteel kon euh, mënoo ko yow kese mais nag euh, ñi ma ciy jàppale tamit ñu xarañ lañ ñu jàng yor seen ay diplôme ah ñoo may jàppale ci natt yi bu baax a baax parce que euh, dafa metti jigéen nga yor ay tool yor ay natt ah bëgg a nekk ci meuble yi loolu yëpp benn jigéen mënu ko mais nag yàlla dimbali na ma ci ba yéen bi oyof na macha allah. macha allah merci beaucoup ñu ñëw ci ñu ñëw ci Kya. ma gërëm ma gërëm sa bajaan nag dëgg neexu laa tuuma ma sama jàmbaat ji bajaan Sakura waale dëgg neexu laa tuuma ma moom bëgg moo ma yiir nekk sama xarit di ma xelal à chaque fois nee naa moom mooy sama manager voilà neex na euh, encore une fois kontaan naa kontaan naa vraiment rien à diir waa Dakar aw ma seen fay te nag dañuy defaat beneen beneen kii ni ñu koy waxatee vente privée le premier décembre ba le 10 décembre dix ba par dix jours lañ leen di may daal waaye daal waa Dakar daal euh, mention spéciale kii tamit maa ngi koy maa ngi koy sargal nga ne ku la tamit. dëgg la barki sëriñ Bamba ko indil lii nag. man waxante dëgg nag dëgg neexulaatu ba ah afa leer dëgg ah, la bokk ma teggil ko benn 40. 40 wàññeel rek million. la grande wooy dix millions. dix millions fukki fukki million ak juróom. fukki ak juróom. 15 millions. 15 millions wa ngi noonu. million ak juróom. 20 millions wa ngi waaw kay ñaar fukki million wa ngi noonu yée vingt cinq million wa ngi noonu laay lay la lu paama demaa simb maa woo Sadio wëy trente million soldat bi ñëw na trente million trente cinq million laay lay la lu yée wura ba dem na këg nag baak war baam laay laa. 40 millions 40 millions lu ci waay mën. ji di eh! jëm ca Kia. ak ay papiers yu leer. dëgg la ànd ak ay papiers yu wóor dëgg la ci gën a wóor ci gën a su la neexee téye. su la neexee nga jox ko. mu dugaloon la ko ci sa compte directement. man nag dama koy jox mu dugal ma ko ci sama compte directement. laay laay la loolu. numéro compte bi la lay jox. laay lay la laa. dañ lay nuyu. Euh, di la bàyyee di la bàyyee gars yi tamit nga nuyu leen. waaw maa ngi nuyu ñëpp. di kontaan seen teewaay fii vraiment nit ñu baax ngeen carrément euh, comme ni ma ko waxee rek dañ doon def vente privée ma kontaan ci waa Dakar gis ngeen tey lu ma def nii yëpp sagal waa Dakar. Mhm. voilà donc euh, lan moo la motiver tey ku ne xam na ni Kya dafa basé wu côté côté côté Saly. Hmm. lan moo la motiver tey bi ngay def vente privée bi nga ñëw nga ñëw nga ñëw Dakar lan la idée bi lan la quoi. waaw idée bi en premier temps nag mooy que ne Dakar dama fi bëri ay clientèle réparation ci réew mi hmm. dañ cee teg tànk ma kontaan ci waa Dakar lool vraiment. Hmm. loolu moo tax ma ne xaaral ma ñëw def fi vente privée te vraiment ça a réussi bii mooy nag mooy deuxième année bi mhm. voilà c' est la mooy deuxième année bi ñuy def vente privée ici à Dakar. mais vente bi lañ bëggoon xam ba xam diw kase la pour teint teint yi daal ba xam euh, kii yaa ci diw kase lay yëngu wala dafa am benn yeneen yeneen yeneen yeneen ci nekk. Euh, déjà euh, vente privée bii moom mhm. ci diw kese la mais kii yaa am na ci yeneen yu mu nekk. waaw yu mel ni forme bi waaw yow ñu ngi ci lépp ci côté boobu. waaw ñu ngi aussi tamit ci euh, affaire euh, euh, kii nu ñu koy wax immobilier et tout ce mais yooyu moom c'est côté privé mais bu nekkee côté ci jiw rek rek rek moom ci la ñu gën a focus. est-ce que est-ce mi ngi préparé mu doon mu doon vente privée boo xam ne international lay doon wala mu doon loo xam ne soit même bu nekkul Sénégal dina nekk biti Sénégal comme pays Afrique yi. waaw ñu ngi koy préparé bientôt rek di ngeen ko gis di ngeen gis Kya à l'international. parce que bëri nañ ay clientes yu nga xam ne ñu ngi nekk à l'extérieur te tout le temps tout le temps ñu ngi ñuy sollicité kii yaa dañu bëgg nga ñëw fii ñu gis la ñu gën a am confiance gën a mën a ñëw carrément yaa naka lay dundee ak clients yi comme tey des fois dinañu gis ñun donte ay góor du ñu utiliser mais dañuy gis problème bi ci réseaux sociaux bi tey di jaay benn client diw euh, diw bi Euh, cinq jours yi mu koy utiliser du day def day def day day am lu mu lu mu def ci yaram da koy xaw a yàq mais fii la ak fii la ak 10 jours 15 jours après yaram bi day normal léegi loolu naka ngeen koy dundee ak clients yi nga xam dañu yàkkamti man nag euh, je pense bien ba may kiyaa ba léegi nit musul taxaw ci internet bi ni kiyaa yàq na ma parce que man ci li may trôner mhm. à chaque fois mooy patience parce que àdduna lépp patience la booy diw nga xam ne peau du yëre bu ñuy solo ko simmi da nga war a am patience ba am exactement li nga bëgg mm. c'est très important ñun moom ci réparation la ñuy focus képp mm. koo xam ne bëgg na jënd produit Kia tous les tous les clientes Kia sont satisfaites si tu es patient da ngay am li nga bëgg voilà kon lan moo tax Kia basé wu Sali Kassé lu tax ñu ko euh, bitigu Kia bi nekk dakaar bitigu Kia bi nekk Thiès bitigu Kia bi nekk euh, yeneen yeneen yeneen yeneen dëkk yi yow ñëw nga Saly Saly xam nga ne showroom bu mag moo fa nekk li ñu bëgg Saly mhm. moom la bëgg dakaar moom la ñu bëgg feneen ak feneen ñu ngi cherché nag mhm. bon si on trouve incha allah di nga ko yëg <laughs> voilà. yaa ah, naka lay naka lay dundee ak euh, moroomam yi nga xam ne euh, ñoom ñoo bokk lenn lu ñuy benn métier bu ñuy bu ñuy bu ñuy def ci ci réseaux sociaux bi comme jaaykatu diw yi mhm. ak des fois coow li am des fois defante bi am des fois euh, problème mu kii am nu mu tuddati sax sotting sotting waaw loolu showbiz la rek. Mm-hmm. ñun ñëpp ay sista lañ. ok waaw. ok mm-hmm. maanaam daal yéen ñëpp yéen ci jàmm. ay sista lañ da ngeen di def showbiz rek. pour ñu dañuy showbiz rek mais ñu ngi ci jàmm. fan si ngeen di def loolu. <laughs> la ñuy def loolu en tout cas ñu ngi si jàmm daal c'est ça ouais man moom ñun ñëpp samay sista lañ voilà donc loolu laa mën a wax. nañu xar Kia ci mhm. mhm. question bi nga ma posé neex na ma torop mhm. li ma lay njëkk li ma lay wax mooy que ne c'est la première fois ñuy gis Kia ci natt Diva Saliou mi dama ko gis wax na dëgg dama koy suivre ma gis fulla fayda ci moom gis classe ci moom mu nekk une grande dame ma ne ah. kii su ma demee bay bokk natt ci moom laay bokk yàlla jaarale ko ci jëmm ji di euh, engagé ma bokk ci moom te gisuma dara lu ma nakari ci moom c'est une personne responsable da ngay natt ci heure mu teggil la ci heure kontaan ci yow soppe yi en premier temps Euh, damay def remerciement à ma mère parce que lii yëpp moom la à ma famille aussi parce que y ma grande sœur qui est derrière moi voilà y aussi euh, équipe bu mag boo xam ne mu ngi sama ginnaaw di ma jàppale voilà ñooñu laay jëkk remercier di remercier surtout cliente yëpp engagé ngir yàlla soit sérieux <laughs> c'est pas possible ah donc di remercier sama client yëpp gis nga bi ma ñëwee dakaar fii laa gën a xam sama cliente yi respect ak amour bi ñu am ci man mënuma leen koo fay moo tax tey dama ne dama leen defalu leen neex ngeen ree ba daanu yi ma def nii nee naa leen man may xalifa général des jaaykatu diw foo ne foo ne gi ñuy wax réparation bi ñuy bañ dañ koy dégg foo ne loo dëgër dëgër jooy non dama dafa am ñaar ñoo xam ne dañoo war a ñëw wax wax ay bal. dama leen a réparé mu ngi ne maman maman lay doon ki Kia. ñëwal maman Kia ak keneen ki anamu. ñu wax. voilà parce que euh, réparation bi dañu nekk di ko laam-laamee. te ñun li ñuy def dañ ko dañ ko jàng. mu nekk amour si ñun ñuy ñuy ñuy ñuy dimbali jigéen ñi. parce que jigéenu Sénégal dañu sonn ah. maa ngi defar maa ngi defar néegu néegu sëy am na client yoo xam ne dañ may woo di ma wax ne ma Kya on te remercie duñu daan